laajoon ci wàllu respecter suñuy charte réew moo waroon dernière licence dañ ko renouveler juróom benn weer may leen juróom benn weer pour ñu tegu ci yoon. marché central au poisson bu Pikine tamit moo gënoon fës ci débat yi. plus un marché boo xamante ni c'est fréquenté par dix mille personnes deux cent quinze agents monsieur le ministre bëggoon naa xam seen situation contractuelle. Aliou Ndoye di dalal xel yi. audit audit ba yàmb na quasiment foofu euh, inspection interne bi laa fa yónni pour ñu xoolal ma pour ma mën a xam mbir yi lan la. lan mooy jafe-jafe yi ew euh, besoin bi yan saafara lañ ci war a indi. waaye marché Joola bi nga xam ne port de Dakar la ne woon ñu indi ko foofu tey quasiment lépp daanu na. donc yooyu yëpp incha allah ci budget bi danañu xool lan lañ ci mën a def. votu budget bi daal dinañ koo amal waaye nag député yu bari teewuñu woon ci noonee nag ab wàññite bu juróom benn milliard lañu ci nemmeeku. Fatmata Diop dañuy des ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu ko napp geek économie maritime moom it àdduna ci jafe-jafe gi ñu dund fan yi ci Sénégal yi kidnappé woon euh, kon yenn ci ay garde côte bu gisaaw bi euh, gis bi ngi ne bisaaw ca noonu itam lam ca xam ne du leen lu dul euh, lu ñaaw la te it daanaka day gàkkal réewum Sénégal di gàkkal itam diplomatie diggante ñaari réew yooye Alioune Ndoye ñu wéy di ko teewal ak Fatmata Diop dañ koy ñaawlu parce que li mu mën a jur moo bëri li mu mën a yàq moo bëri te gis ngeen tey gis ngeen bu baax relation yu baax yooyu lim ñuy jural en tout cas man euh, encouragé wu ma nga dem réewu jàmbur force de défense et de sécurité arraisonné la ñu am nga fay ay représentant demal nga wuyu ji say say saytu na yegg ci ñun ñun ñu def suñu liggéey am nañu ambassade am waaye yow nga ne ñoo ëpp ci gaal gi nga jël par force ay militaire yor seen gànnaay ay kalachnikov nga jëlee leen foofu indi leen fii ba Joal xaw ma Mbuur jël risque yooyu kenn waru ko jël te li mu yàq dafa bëri. mi ngi noonu kon Birahim ministre bi àdduna ci jafe-jafe secteur euh, pêche bi waaye seetlu gi benn la lu njëkk mooy député yi ñoom teewu ñu ci bari assemblée nationale. mooy li may wax sànq xam nga mënuñu laa fal dañ na dañ la fal nga dem ci ay élection ñu fal la nga nekk député mais euh, lu tax nga nekk député dañ naan député du peuple yaa ngi koy wax euh, Mansour Diop ñu koy El Hadj Mamadou Mansour Diop un député. il est là pour les populations gox lañ la fale ci région ñu ne nii dem nañ sax ba jël ay député diaspora dugal leen mais bu ñu jëlee député pour nga nekk assemblée nationale c'est pas pour chanter les louanges du président de la république parce que yéen a bokk parti wala yenn a bokk coalition mais pour ñaxtul askan wi fi nga xamee ni foofu lañ la falee nga war a représenter askan wi fële ci assemblée nationale lan lañuy wax c'est la représentation nationale mais nga dem assemblée nationale boo xamee ni am na ñoo xamee ni teguñu fa seen wala benn yoon lay doon ci bi ñu leen fale ba léegi doon ay député ñu bokk ci opposition wala ñu bokk ci pouvoir mais ça ça pose problème moo tax bu ñuy euh, wax muy élection territoriale muy élection législative c'est à nous muy askanu Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen carte d'électeur ñu war a xool ñan la ñuy tànn ba pare mu am loo xamee ni mais yoon la ñu war ko teg sa kaw et pourtant euh, Mohamed Diop assemblée nationale ci règlement intérieur am na fu ñuy waxee ni am na nombre de séances yoo xam ne ni boo ko absenté mais dañ la koy dañ la koy dagg am na fooy toll foo xam ne dañuy jël sax sa sa sa poste député jox suppléant ki nga xam ne moom la ñu toftaloon sa sa ginnaaw mais est-ce que ñu ngi appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale c'est une question que je poserai peut-être au président de l'Assemblée nationale muy Moustapha Niasse xam naa ni il est très à cheval sur lépp luy texte lépp luy loi lépp luy réglement intérieur parce que li ñu naan daf ko guux xam na lépp lu fa xew mais euh, absentéisme boobu muy ay vice président yoo xamee ni dañuy absenté di ay député yoo xamee ni dañoo war a dem toogal seen gox absenté mais moo tax yenn saay da ngay gis bu ñuy def marathon budgétaire nga xool euh, image yi nga xam ne moom moo am biir assemblée nationale mais tu te demandes si cent a cinq députés yooyu ñuy wax parce que li li ciy nekk dañ la naan le quorum est atteint mooy maanaam tiers bi jot nañ ko ñu ngi fi kon mën nañu tàmbali les travaux il faut que euh, contrôle bi législatif war a def ci exécutif mais il faut également que askan wi mën a def contrôle ci législatif boobu ba nga xamee ni ñi war a toog ca fa ñu war a toog pour mën a ñaxtul askan wi ñu mën ko def ci anam yi mu gënee. Euh, Haj Mansour lu mooy seen ñàkk ñëw itam waxtaan nañ fa wàllu accord de pêche soxaloon loolu député ya fa teewoon ak jafe-jafe gi yi amee. amul pratiquement tontu boo xam ni dal na xel ci dogal boo xam dañu koy jël carrément euh, sans compter ñi nekk ci marché au poisson dinañ fa envoyé benn équipe buy def audit interme mais ba kañ ak coow li nekk ci marché boobu ak léegi ay téeméeri téeméeri liggéeykat yoo xam ni xamuñu seen ëllëg c'est-à-dire que gis nga benn borom kër bu ñu xëy exploité ko ci bërëbu liggéeyu kaayam dafa war a nekk yittey député bi yittey ministre bi mais taxul jox ko valeur Alioune Ndoye doon nañu xaar yeneen explication yu gën a leer lan moo tax ay bato yu kenn mënta contrôler di napp suñu géej gi ba tax suñu géej gi amatul benn jën ba chaque jour ñuy jàpp suñu nappkat yi Mauritanie di leen jàpp Guinée Bissau wax na itam ci nappkatu yi nga xam ne def nañu ëpp xëy na jàpp ay garde côte Bissau Guinée indi leen fii c'est vrai que ànd na ak moom mm. ci soldats yooyu mënoon nañu jëfandikoo seeni ay armes mm. mais jëfandikoo wuñu ko certes mais après loolu bi ñu ko sanctionné ba noppi mais est-ce que waxtaan nañu ak nappkat yi ci ban souffrance la nappkatu Sénégal yi am licence ba noppi di jànkuwanteel bu ñu demee Guinée Bissau mhm. dañuy am licence de pêche am sañ-sañu napp ci géeju Guinée Bissau mais garde côte yi dañu leen di bundu xataal ci façon bu doy waar mhm. am nañu sax ay bateau sénégalais yu ñu jàpp foofu Guinée Bissau yoo xam dañu leen laaj xaalis boo xam ne c'est illégal pour ñu fay ko soog a mën a libre état bu Sénégal nag moo wax ci ay partenaires am ak accords yi muy signé protéger waale ay aw aw askanam. mais bu fekkee gan gee la gënal saw askan dañuy continuer di leen tawaxal bëggoon naa xam itam comme bàyyi nañu soldaaru Guinée Bissau ñu ñibbi. ñëpp àndandoo dénoncé ko ñaawlu ko mais jàpp nañu. ñaari capitaine ak plus de trente personnes yeneen gaal yu ñu arrêté waat Guinée Bissau lan la ci gouvernement bu Sénégal def pour suñu doomu réew yooyu ñëw itam ñu delloo siwaat leen parce que soldats yi bi ñu leen jàppee itam méttitaluñu leen dóoruñu leen gaañu leen delloo nañ leen ci jàmm suñu doom yooyu itam ay père de famille lañu na leen bàyyi ci jàmm sans compter mhm. ci ñoom fukk ak nangam yi nga xam ne tey la ñu leen di jébbal procureur de la république pour yóbbu leen kaso xanaa xëy na ñu baleen xëy na leen baleen <laughs> kon nag état bi itam bu defee leen Guinée Guinée Bissau Bakar fegoo lan la defal ay doom samp bu laaj la wala laaj bu samp mu doon lu am solo ginnaaw ba ñu retiré ay couleuram ak i spécimen am ci coalition gi mu taxawaloon moom Adama fay euh, mi ngi duut barama tuuma jëriñ gi ñu dénk wàllu ko biir réew mi Antoine jom ak euh, njiitu réew mi ci boppam moom Macky Sall euh, bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom njiitu réew mi dafa utiliser moyen yëpp ngir invalider boobu léegi liste am itam wax nañu ne daa ñu jël moyen yëpp ngir dem ci yooyu léegi élection Adama Faye ñu teelu ko ak Alassane Balde tooguñu rek ministre de l'intérieur ñëwaat am doole ni moo dafay dund si ay couleur ba nag ñun dañuy jox ay couleur ñun nag nanguñu ay couleur am te bu soobee yàlla du dem élection ay ay couleur am xanaa comme que ñun dañoo am yar ak xam luy dëkk dañoo xam luy yoon xanaa décision de justice impose ñu ko obligé ñu ko dans ce dem couleur dinañ dem élection bu ñu demee ak feuille blanche sax dañuy gagné bu soobee yàlla. donc suñu problème ak président Macky Sall c' est des problèmes de principe et de conviction ñun d' accord ñu ak nu mu doxalee politiquement ces dernières années. jàpp nañu kilifa yi bu ñuy wax ak bu ñuy doxee dañu war a doxalee doxalin boo xam ni dafay rafet ci nit ñi rafet ci askan bi mu ma nekk le leçon pour le futur. mi ngi noonu Birahim Adama Faye mi taxaw na temb de nee na yi kenn mënu ko koy tere euh, bokk. waaw euh, élection nag day wees euh, man loolu mooy sama kàddu élection dafay wees muy Macky Sall muy Adama Faye muy Bougane Gueye muy Ousmane Sonko muy xalifa Babacar Sall ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi am loo xam ne yaa ngi koy wut ci wàllu askan wi muy élection territoriale wala législative wala présidentielle mais nañu surtout fàttaliku ni xeex yi ñuy xeex seen biir. malheureusement yenn saa yi day am lu ñuy ay dommages collatéraux. mooy askan wi ñoom ñooy subiir conséquence su xeexu ñaari euh, ponkal ci wàllu politique wala lu mu mën a doon nañ fàttaliku nag ne élection day wees. élection territoriale yi xam nga euh, locales yi le 23 janvier la ñu nekk ci li ñuy woowee période de pré campagne weer lay doon après ñu dugg ci campagne électorale 14 jours la fukki fan ak ñeent lay doon.